ngir tàggat leen ci constitution bu yees bi anam déposer ses candidature ci élection présidentielle yu ñu direction générale des élections amal ab atelier de formation jagleel ko ñenn ay mandataire parti politique yu rafetlu lool taxawaayu

Euh, date ak yenn dossier yenn pièces lañuy ñuy boole ci dossier de candidature yi mooy pièce d'identité yeeg euh, certificat de nationalité ainsi de suite loolu gën nañu ko leeral tey wax nañu aussi ban période la ñuy déposer dossier de candidature bi ak ban période le conseil constitutionnel di def tirage bi. képp kuy mandataire wala ngay coordinateur national di nga préparer le dossier de candidature. ba doo ci am benn déposer ko dans les délais et puis moytuwaale aussi yenn erreur yi nga xam ne moom expérience am ci conseil constitutionnel génn na ko wan ko pour ñu moytu ko donc ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax Birane pour euh, vraiment liggéey bu rafet bi xam ne euh, teg na ko suñu loxo. tout d'abord dañuy euh, féliciter DGE ak conseil constitutionnel si séance bi ñu organiser pour mettre ñu un peu à niveau par rapport à ak disposition yi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko ak arrêté ministre bi nga xam ne jël na ko pour ñu gën a mën a euh, expliquer pour ñu mën éviter yenn erreur yoo xam ne war nañ ko mën def donc pour pour euh, bañ yenn dossiers yi ñu war ko mën rejeter sur des fautes donc mu donnons ndaje bu am solo euh, permettre nous en tout cas ñu gën a maîtriser processus bi. li nga comme ne itam mooy code électoral bi djebal nañu ko ku nek si ñom yoyé mandataire l'ata dépôt dossier candidature yi di tambalé bi ñu waxé né dépôt dossier candidature yi. le 11 manam fukki fan ak ben ci wéru décembre ba fukki ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre la war am ñun dañu ne balaa ñoo dem déposer di nañ leen defal formation boo xam ne da leen di permettre ñoom ñu xam pièces yi ñu war a yóbbu conseil constitutionnel bu ñuy remplir également formulaire yi ak pièces yi nan lañ koy defee ak bu déposer ban date la déposer ak booy déposer lan nga war def pour déposer ak kan moo war a déposer ak fi nga war a déposer dossier bi ak bu ñuy contrôler dossier bi lan ak lan moo la ci war a xaar formation bi tey loolu la dañu am benn guide boo xam dañ ko defar jéggal leen ko jébbal leen ko te ci guide boobu dañ leen di expliquer lan lañ war a def kañ nga war a déposer foo war a déposer nan ngay déposer yan pièces ngay fournir booy déposer guide boobu aussi jox nañ leen ko jox nañ leen également code électoral exemplaire pour ñoom aussi ñu mun di lire code bi di xam délai yi di xam date yi pour mën a préparer ñoom aussi seen dépôt de dossier de candidat. ndaxte am na ay coppite yu am ci procédure dépôt yi. bu njëkk bi lañ foogoon que ni dépôt bi dafay am tirage au sort pour déterminer l'ordre de dépôt après L'ordre de dépôt est conditionné ordre bi nga xam ne moom le contrôle parrainage wante comme le conseil constitutionnel est, ñu le ko euh, dépôt bi du am tirage au sort a commencé le 11 ba le 26 ku mu neex ku pare déposer maintenant après le 26 si la organisé organiser tirage au sort pour contrôle parrainage bi. nous tirons, nous nga numéro 1, nous yow la contrôle. ainsi de suite ba ki mujjee léegi nag bu conseil constitutionnel bu defee loolu ba pare après nag ci lay procéder ci contrôle bi pour mën a xool ndax li ngeen indi parrainage ci baax nañ wala baaxul conseil constitutionnel boo xooleen en 2019 dafa doon bàyyi candidat yi déposé même sa pièce bu motul da leen contrôler sa dossier de candidature mais bii bi mu génnee décision dafa ne koo xam ne pièce bu ko manqué par exemple ñu ne amul certificat de nationalité wala amul casier judiciaire wala nombre de parrainage yi mu indi motul wala ñu xool ne aussi am na benn dossier bu manqué conseil constitutionnel dina jël sa dossier waaye bu ñuy contrôler parrainage doo ci bokk boo indiwul attestation bi également la même chose donc loolu également dafa nekk benn coppite bu ci am beneen bi mooy bu fekkee ne dañ la ne ñaar fukki parrain nga war a indi mooy maximum bi fa la yem yow nga indi fanweer. bu boobaa conseil constitutionnel da lay fanweer yi nga indi man ñaar fukki rek laa ciy jël li ci des man duma ko contrôler dépôt dossier candidature yi fukki fan si weeru décembre bi lay tàmbali jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn direction général des élections xam ne ni ubbi na ay buntam ngir lépp loo xam ne si jaaxal na yooyee mandataire ñu ñëw ñu leeral leen ko